Levi TV mbégte contentement la ñuy am euh, di leen dalal suñuy plateau Levi TV ñëw ak ak émission bu bees tax laataa lool di leen ñaar ngeen abonné ba si cloche de notification bu ko defee chaque altine di ngeen am Sadio Fati ak l'émission la grande question ci Levi TV. alors tey ñoo ngi dalal kii di Mame Thierno Birahim Ndiaye di responsable politique Benno Bokk Yaakaar fële ci commune de Grand Dakar également di élément bi nga xam ne nii. issus du mouvement associatif Mame Thierno ñoo ngi lay dalal ci plateau Lévi TV. Euh, merci monsieur Faty ñoo ngi leen di nuyu di nuyu internet yi ñu seetaan ci Lévi TV di ci profiter aussi di leen encourager di leen féliciter ci bi ngeen jógee ci presse écrite ñëw tey ci ci télévision. ok gis nga bébé la ah. <laughs> bébé la Lévi TV moo ngi ñëw moo ngi si kaw gars yi donc. ñu leen ñaan ngeen abonné ba si cloche de notification bi yàlla yàlla yàlla mag ak jàmm ak salaam. amiin amiin yow hmm. moom. boo ñaanee yaay maam Thierno boo ñaanee sunu borom dina ko dina dina ko nangu. merci waaw dalal jàmm donc comme ni ñu ko waxee maam Thierno euh, laataa ñu dugg si débat politique bi collaborateur kii nga Amadou Ba. proche collaborateur collaborateur plutôt dañ bëgg d'abord nga ñëw si sa parcours politique ndax yàgg nañ laa suivre mais euh, est-ce que mën nga ñëw tuuti si sa parcours pour ñu lay suivre si Lévi TV nga xam ne c'est la première fois ñu gis la si suñuy plateforme. merci monsieur Fati je pense que comme ni nga ko waxee c'est Thierno Birahim Ndiaye. président du mouvement La Génération Dieuf responsable politique Benno Bokk Yaakaar à Grand Dakar je pense que peut-être pour def une petite présentation rek après le prytanée militaire de Saint-Louis en en 2000 je me suis inscrit à l'université Cheikh Anta Diop de de Dakar waaw jaar na prytanée militaire de waaw je nation pente waaw ah oui donc euh, mu nekk université dañu constaté woon benn grande Dakar vraiment dafa amoon euh, problème mu délinquance juvénile bu doy ba fa amoon ñu engagé wu ci mouvement associatif yi moom objectif nag pour mën a vraiment suñu morom jeunes ñu waxtaan ak ñoom euh, ñu jaar fa nag def ay activités yu bëri sur l' éducation sur la santé vraiment beaucoup activité activités à Grand Dakar bi ñëwee ba en 2007. ñu constaté que di Grand Dakar problème bi mu amoon mooy problème de leadership politique yow la yow la ci amoon. Mhm. c' est pourquoi en 2007 nous avons créé. Mhm. le mouvement citoyen jot na defal sa gox à Grand Dakar. Mhm. boobu notre moyenne d' âge était de 25 ans ñu ko formé woon. mu regroupé woon tous les mouvements associatifs de Grand Dakar. sachant que j' étais le président de l' association jeunes de Grand Dakar. j' aussi le président. du conseil communal de la communal de l'arrondissement de, de, de, la jeunesse de l'arrondissement de Grand Dakar. Mhm. Pour cela, vous dire que Fima Diar, c'est mouvement associatif. Après, on a créé le mouvement surtout jotoon na sa wax dem aux élections en ce qui faisait notre particularité en muy ni ay jeunes kese ñoo fa ñoo fa newoon. ñu dem élection man maa nekkoon tête de tête bi. on a participé aux élections on a eu 1200 voix. te boobu su ma indi c'était 25 ans c'était pas évident wax wax dëgg fa yàlla. donc à de ma nekk conseil municipal ba en aussi je me suis présenté aux élections municipales. sous la bannière du mouvement citoyen nous avons créé un mhm. mouvement politique tuddee ko génération jëf ak maam Thierno. ñu dem élection jàppale le président de la république. Mhm. à Grand Dakar depuis 2009 ñu koy ñu koy ñu koy ñu koy ñu koy depuis 2017 ñu koy ñu koy jàppale. mais nag en chacun aussi en 2022 aussi dem naa aux élections municipales. Mhm. nekk candidat on a eu 1600 voix aux élections municipales en 2022 bi ñu bi ñu passé. pour seulement vous dire que dañu jógee ci mouvement associatif. Mhm. ñëw ci mouvement politique di ci bàyyi suñu suñu waar. laataa ñoo ñëw ci aspect politique bi euh, Mame Thierno tey boo xoolee Grand Dakar nga gis jeunes yi yëpp si mouvement associatif nga xool Junior xool Cheikh Diop xool ñeneen ban sentiment nga ngay euh, ressentir. un sentiment de de de, de fierté parce que en réalité ñun en 2000. loolu amul woon Grand Dakar. ñun suñu objectif loolu la woon. fexe ba tey Grand Dakar je ñëpp ku nekk nekk ci dara di ci yëngu. ci wàllum administratif je pense que loolu tey. nous l'avons réussi. nous avons Junior Diakhaté. nous avons Galamou Thiam Diallo mbedd mi du Mbalit. nous avons Baba Ndiaye journaliste. nous avons monsieur Fati journaliste. nous avons Cheikh Diop journaliste. <laughs> pour seulement vous dire que aujourd'hui dafa am émolument vers le haut. Mhm. aujourd'hui dans le cadre de la, de, de, de la culture, mm -hmm. souligner Tarba Mbaye, le Baïfal de la musique séné, mhm. sénégalaise, c'est une fête, ça veut dire que nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo ci émergé je pense que en 2000 mm-hmm. loolu la ñu tey mooy suñu tey suñu raq buñ ci toll aussi mm-hmm. ñoom engagement bi gën a gën a kii jukkaaw qui me permet mm-hmm. euh, j'en j'en j'en pour féliciter Baba Ndiaye je pense que le samedi passé il a fait il a fait euh, un don de fourniture scolaire aussi il a fait le le samedi d'avant pour seulement vous dire que ñun jeunes Grand Dakar yi xam nañu li nga xam te ne moo war par rapport à notre commune euh, la waxtaanee mais également bëgg nañ tey jii nii yaa ngi ci Amadou Ba mais euh, Jean-Baptiste Diouf suñu maire candidat la <laughs> looy loo loo looy wax ci loolu tamit en fait sa adversaire la mais euh, doomu grande Dakar la nga gis ko mu samp ndëndëm ne président la bëgg a doon c'est un. non c'est une c'est de voir. Mm-hmm. Mm-hmm. un fils de Grand Dakar. Mm-hmm. Euh, vouloir accéder à la magistrature suprême du Sénégal. mais il faudrait dire aussi Amadou Ba aussi c'est un fils de Grand Dakar. il est né mais attends gars yi nee nañ Amadou Ba il est né là-bas mais il n'a rien fait là-bas. non non non vous savez vous savez vous savez mhm. les les relations familiales et sociales qu'il a. Mhm. avec les fils de Grand Dakar. je mhm. pense que yooyu ba tey moo fa. ku xam Amadou Ba boo xoolee safam ñu ko gën a jege. je pense ay doomu Grand Dakar nga ciy nga ci gis il est vrai que politiquement parce que yow lay yëngu mais faut de l'accepter Grand Dakar fa la juddoo mu si fa màggee fa jàngee école école kii primaire mais est-ce que euh, moom rompre relation ak Grand Dakar non comme je te dis mhm. xam nga dafa loo xam te ne c'est un peu indéfinit mhm. mais quand tu son cercle d'amis mhm. quand tu son cercle d'amis Euh, maam Thierno ñu ñëw sa diggante ak l' ancien ministre Ndeye Saly nga xam ne sa collaboratrice la woon ngeen yàggoon ànd si ay élections. mais tey daa mel ni neexatoo leen. non xam nga xam nga xam nga politique dafa am fu muy toll foo xamante ne. Hmm. il faut de nit ku nekk demal boppam. Hmm. parce que en réalité ce qui se passe avec Ndeye Saly. Hmm. en 2017. dañuy dama ñëw ñu ànd. ma jox ko sama bopp. ni ko jox naa sama bopp def def def naa la yaay. malheureusement pour des raisons politiques sa n'a pas marché. ba après. relation yëpp dagg bi ñëwee ba en 2022 président woo ñu recevoir nii dafa bëgg ngeen ànd ngeen liggéey pour pour kii éle éle élection yi bi ñu paree yi tamit li ci gis mooy li amoon 2000 après sa rek moom moo moom moo amaat déjà muy rupture de kii confiance mais aussi ñàkk yéenante parce que dama jàpp ne àdduna moom nit ñi dañu war a yéenante lan ngay woowee ñàkk yéenante yéenante mooy ni que nit ki boo nekkee fenn nekk ak say moroomu doom da war a fexe ba boo tolloo fenn say say morom dem tamit toll toll kii fenn mais quand tu que en politique mhm. yow dong yaa war a am kenn waru am rek da ngay ciy sonn moi je pense que li ma war ak moom Grand Dakar ñëpp xam nañu def def naa ko mhm. Grand Dakar ku ma mere rek Ndeye Saly nga ma mere parce que jeunes yu bëri jàpp nañu war moo ànd ak ñoom waaye man dama jàpp ni àdduna gëm-gëm rek moo ci am solo yaa nii boo jàppee ni yéen a bokk gëm-gëm te yéen a war a ànd da ngeen a ànd yow yow yow ci yàlla tax euh, maam Thierno a da nga am dara mu xañ la quoi qu'est-ce qu'il y a exactement nga àdduna parce que waa Grand Dakar bëgg nga wax ni bëgg nañ xam réellement ce qui se passe entre maam Thierno et Ndeye Saly xam nga àdduna mhm. yàlla rek fi ne mhm. yàlla rek kay joxe te muy dëgg lu ñu tudd ci jëwu maam Thierno mbindeef mënu ci mënu ci dara man moom mhm. dama gëm yàlla taalib Sëriñ Tuubaa laa mhm. damaa gëm ni lu ma war a am rek dinaa ko dinaa dinaa ko am mhm. mais rafetal diggante dafa kii am am kii solo <laughs> maam Thierno expliqué yaa non non on n'a pas besoin xam nga vous savez vous savez on n'a pas besoin d'entrer sur des détails mais dama ni ay nit bu ñuy ànd dañuy yéenante te muy dëgg waaw nga bëgg am sa morom am tam man li ma war ak moom. def naa ko gannaaw yëpp xam xam nañu def. mais da ngay confirmer ni que liggéeyatu leen quoi. non non non c' est non non c' est c' est fini maa ngi lay sali moom. Hmm. je pense que ci wàllum liggéey politique moom c' est kii fini. ok ci wàllum euh, liggéey politique c' est fini. waaw leer na nañu mais yow euh, bokkoo APR. Euh, mouvement allié nga duggee Benno Benno Bokk Yaakaar mouvance présidentielle. xam nga man bi may ñëw bi may ñëw dans la cause Benno Bokk Yaakaar. Mhm. j' ai un mouvement. bi tudd génération jëf ak Mame Thierno mhm. bi ñu demee ba 2022 après après les élections législatives mm-hmm. je me suis décidé ni je vais m'engager dans le parti mm-hmm. mais ba tey aussi dafa am dafa am ay détails yu yu yu kuy xew nga mm-hmm. xam ne je pense que peut-être fekk ci kanam on va on va parce que day baax yenn kilifa yi nga toog moom waxtaan ñoom ba pare ba soo xam ni ngay fi ngay taxaw ok ok mais man dama jàpp est que seen divergence entre les responsables locaux du yàq dara liggéey bi ngeen war a def pour 2024 bi ñu jëm non non pour ce n'est jamais évident en mhm. politique mhm. d'aller de manière séparée mhm. mais dafa am loo xamante ne fi ñu génn wane ne ni dafa am ànd yoo xamante ne li muy yàq sax mooy ëpp li muy defar ndexete dafa am ànd yoo xamante ne ndexete li muy yàq mooy ëpp ndaxte li muy li mu li muy ki defar. mais Mame Thierno est-ce que regretté woo li nga collaboré ak euh, Ndeye Saly est-ce que quoi. en fait non non tu sais xam nga dans dans la vie. moi je ne regrette jamais. moi je dis dans une relation. toi soit tu y apprends mhm. soit mhm. tu y gagnes ñaari choix kese mën la jàpp sama sama àdduna mhm. mais li leer ba leer mooy bi ñuy àndaat 2022 ñu bari ci nekkoon ma nekk génération jëf dañ ma ne maam Thierno waratoo ànd ak ndey ndey ndey ci sali perte nga ci ay militants yu ñu bëri ñu bëri ils ont eu le courage de me dire que maam a ànd ak moom mais dama jàppoon rek loolu mooy liggéey mais je pense que l'histoire leur a raison je pense que l'histoire de donne raison. ce parce euh, que liñ liñ ma liñ ma liñ ma doon bañal. Mhm. ba tey yow yow mu ñaar mais xam nga àdduna moom. Mhm. Euh, defal li nga war a def rek. Mhm. moi je pense que dafa am lu ma waxoon lu kii am solo. ñaar dong laay may sama àdduna ma nit. après tourne tourne sëgg. ndeysaan lu mu ko xool mu ko sëgg. ok lu mu ko xool mu ko sëgg. leer na ce qui veut dire que euh, reconnaître nga sa erreur donc ñu. jaar non non tu ah, ah. sais dans la vie en politique il faut il faut la grande majorité des membres de la génération Diouf dañ ma ne woon maam Thierno waroo ànd ak nday nday nday Sali jëlal man leen nañu ànd suñu àndee mun mun mun nañu jural ci njëriñ mais malheureusement demeewul noonu donc il faudrait accepter que passer à autre chose passer à euh, donc ñu ñëw si situation Benno Bokk Yaakaar euh, dakaar bi nga xam ne également mun nañ ne euh, demeewul noonu entre les certains responsables Euh, yow mi responsable politique Benno Bokk Yaakaar département de Dakar yow ban jàngat nga def euh, position les les les leaders les uns et les autres. je je je pense que le le plus important. Mhm. mooy ni que dans le département de Dakar. Mhm. la grande majorité des leaders yi fi nekk que ce soit du Benno ou de l'Alliance pour la République. Mhm. ils sont d'accord sur le choix du candidat Amadou Ba. d'autant plus que je pense que c'est un candidat de Dakar. c' est la première fois. que ñu am vraiment un candidat très sérieux bu jugee Dakar. donc ñun loolu suñu fierté la. mais ce qu'il faut reconnaître que dafa am ay démarches yoo xamante nii doxul parce que quand même depuis 2019. nous perdons des élections à Dakar. depuis 2019. nous perdons des élections à Dakar. tey jii je pense que li ñu rawee Dakar aux élections législatives. musuma ko fàttaliku bokk ñu rawee ko noonu pouvoir. mooy dernières élections yi dernières élections ñu jëm plus plus de plus de cent mille fois. donc war nañ ci mën a defar jàngat. Mhm. jàngat bi nag dama jàpp ne ba tey defaguñ ko. parce que li war mooy fexe ba. jeunes yi fi nekk. yàgg jàpp président de la République Macky ñu jël leen cëral leen ànd ak ñoom mhm. mais ba tey. même personne bi même groupe bi ñooy ñooy ñooy ñooy diriger Dakar loolu nag mun mun tax gañalew kenn on désolé de le de le dire. ok mais est euh, comme li nga wax nii est-ce que yi nekkul les responsables quand même ñoo nekk même ñooy nekk à chaque fois les instances de décision parce que le président avait donné des instructions mais ba léegi ça n'a pas. non non malheureusement c'est c'est que moi moi moi qui je pense que. Mm-hmm. avoir après avoir perdu ces élections législatives mm-hmm. Dakar on devait se on devait war regarder ñu xool mm-hmm. face à face. Mm-hmm. ñu waxtaan suñu biir. Mm-hmm. xool solution yi lan la. man su ma la nee à ba tey on reçoit la benn on ne reçoit pas maam maam Thierno dañuy kii ndax seen bopp. Grand sax sans maam Thierno benn benn bokk yaakaar mënu mënu ko gagné. c'est ah impossible. non non non non. a Ndeye Sali Benno. il y seen docteur Sène Benno. non ce qui est clair. ce qui est clair ce ñi nekk benn yëpp di wax. Mhm. ñëpp benn yoon yëpp di wax. Mhm. man ne ëpp mboolu fuuf maa ne ëpp électorat fuuf du jax benn. Mhm. bu ci mobilisation. bu ci électorat. loolu moom lu leer a waa Grand xam nañ ko. donc suñu ñëwee benn bokk mën nañu def dara Grand Dakar. sans maam Thierno dañu ciy nax nax. dañoo recevoir responsable Benno. non j'ai je l'ai eu dama voyagé dégg ñu ne ma. recevoir nañu responsable Benno. Benno Bokk Yaakaar te yow yëgoo ko quoi te man ki yëguma ko. mais mais est-ce que tam bi nekkul divergence bi nekk seen diggante amatul coup de fil euh, information jàllatul. loolu tamit sooxel na seen collaboration. vous vous savez vous hmm. savez vous hmm. savez. moi je pense que ce que nous retarde dans les Benno. Hmm. il y a eu trop de lobbying. ah bon si si si. autour de Amadou Ba. non euh, non pas pas autour je pense que c'est c'est même autour du. de l'administration du, du parti. Mm -hmm. Parce que ce qui se passe, celui qui convoque les, les réunions, mm -hmm. mais, mais quoi qu'il advienne, mm -hmm. quoi qu'il advienne, mhm. pour que, ça, que cela soit clair et net pour tout le monde, mhm. Grand Dakar, ou Beno Yakari, Japonais, il faut que ce soit clair et net pour tout le monde. Mam Thierno, est-ce que frustré vous non man je ne suis pas je j'ai pas l'habitude d'être d'être kii frustré mhm. man damay nekk si li ma nekk di ko def mhm. man j'ai fait mes preuves politiques mhm. loolu lu lu lu ki wér la. donc man awma ci dara lu muy kii frustré wu. Mm-hmm. ok maintenant nag maintenant peut-être ñi ma àndal. Mm-hmm. il est vrai que ñi ma àndal. say collaborateurs samay collaborateurs. Mm-hmm. jeunes yi ànd ak man. depuis 2017 di jàppale président Macky Sall seen quand même neexul. situation ni mu demee quoi qu'on puisse dire. neex neex xam naa mooy <laughs> <laughs> boo mbokk internet yi ñu leen ko waxee ni yeneen ci Levi TV ñu leen ñaan ngeen abonné ba si cloche de notification bi ñoo ngi dalal kii xam ne nii responsable. politique la Benno Bokk Yaakaar fële ci Grand Dakar Mame Thierno ñu ñëw ci tournée premier ministre tournée politique wala tournée économique nu ñu koy woowee. non non tu, tu sais une une tournée d'un d'un gouvernement. Mm-hmm. est-ce que gouvernement la wala candidat. non non c'est le gouvernement. du candidat une tournée d'un gouvernement. non Thierno avouons nag avouons quand même. vous vous savez. vous savez quand même tournée politique la. toute activité gouvernementale. Mm-hmm. qu'elle soit économique ou mm-hmm. autre. est, a toujours une coloration politique. à mm-hmm. vous. ça veut dire que il faudrait accepter que. Mm-hmm. loolu. Mm-hmm. bu ñuy dem. di inaugurer par exemple centre de santé li lycée bu bu Koki. mais ñi jëm président di nañ génn ñëw. kenn mënu ci dara <laughs> booy inauguré xanaa doo inauguré nit ñi ah, bu bu ñu ñëw. ah vous êtes fort en communication <laughs> avouez parce que en fait euh, semaine bi ñu jógee gis nañ ñi ñu def Khalifa Sall. Euh, entrée Fatick gis nañ ñi ñu def Malick Gakou. avant ñooñ ñeneen dund nañ ko. Mhm. autrement dit euh, candidats yi nga xam ne nii c'est des candidats déclarés bu ñuy def seen i tournée on leur demande des autorisations. Amadou Ba Amadou Ba discours am bu demee comme li nga wax ni tournée économique la woote mais discours bi continuer bi. vous vous savez vous savez on a toujours le privilège de la gouvernance parce que tey. ba déséquilibré jeu. non non no non on ne déséquilibre absolument rien. si c'est déséquilibré xam nga xam nga xam nga xam nga tey. ñeneen ñu lu lu tax ñu ñu tere leen. Mhm. tax ñu tere leen parce qu'ils n'ont pas eu d'autorisation. Amadou Ba am na autorisation. non mais cela va mais mais cela va de soi. Ah, mais Amadou non attends <laughs> suy dem attends fi muy dem gouverneur moo koy recevoir. wala wala kii préfet. mais discours bi meeting yi <laughs> tout ça démb rek. Euh, <laughs> non non Mame Thierno quand non non mais c'est que partout partout dans le monde. une tournée économique, cela a toujours une coloration politique. Mais est-ce que la logique voudrait pas que nous baillons aussi nous circuler librement comme Amadou Ba nous circuler Non, que demande autorisation nous baillons yow yow Mais Amadou Ba demande autorisation pour le cas de Khalifa Sall, non, ko wax tamit toi Amadou am na autorisation pour Amadou il campagne bi jëlee dañ campagne ba mu ah, mu quoi. dama lay wax dafa am <laughs> ah, ay réalisation dafa yu ñu def euh. mhm. muy dem du ko inaugurer ji. Mhm. am projet yu ñu war a teg. muy dem di ko di ko di ko teg am waxtaan yu war a waxtaan ak population bi ba léegi nangu woon ni tournée politique la quoi. non xaaral li ma la wax man une tournée économique. non a toujours une corrélation politique. pour pour pour gouvernement. j'ai parce que je donne un exemple je je donne un exemple. Mhm. avant ñuy wax waxu kii présidentiel. Mhm. mais président fu muy dem. Mhm. mais nit ñi dañ génn teeru ko. tatagal ko. c'est pas c'est pas parce que élection présidentielle dafa jege rek ñu ne. <laughs> non daal man jaaxal <laughs> ngeen ma quoi. Euh, seen foo leen ci toll Grand Dakar yéen a ngi collecté est-ce que am ngeen euh, ñu leen parrainé sax. non non si si si si je pense que quand même. Mhm. Euh, Grand Dakar moom ku ku ne maam Thierno xam ne parrainage ñeneen leader yi aussi. Mhm. je pense que aussi ñoo ngi. ñoo ngi ciy pare ne yaa ngi collecté eh, non non ñoo ngi collecté ay parrainages ñaata ngeen amagum pour le moment. non pour pour la parce que mën 100 200. non non non non rien que rien rien que pour la gérer actuellement on est on est à à à 500 francs. fële euh, grand écart. Euh, waaw waaw rien que pour pour la génération jëf mouvement génération jëf. jëf ki rek lu bokk la nag. ñeneen yi léegi nga xam te ne ñoo ngi ci te day day dem bëgg. bu bu ci décembre ah. ok euh, ponk boobu sax on a vu Pape Djibril Fall ak l'autre la ñuy kaas. ne ñu mel ni coalition Benno Bokk Yaakaar ak Pastef nga xam ne ni am nañ possibilité jàll ci euh, parrainage par les élus dangeen war a am élégance bàyyi parrainage des citoyens euh, yeneen candidats yow loolu noo ko jàngatee maam Thierno. Euh, politique boo demee. Mhm. ba mënoo too amal sa bopp quarante mille parrains. Mhm. bàyyil. tu ne mais est-ce que tam bi c'est pas élégance républicaine. non moo laaj loolu noonu. quand même tu mhm. le système de parrainage il est individuel. yow boo demee ba ni. mënoo am 40 000 parrains. Hmm. cest dire que mooy tu tu fais un aveu d'échec mais war waroon ni da nekk candidat aveu d'échec la pour yow quoi si. Hmm. nit ki mais est-ce que yéen boo leen bàyyi loon parce que yéen déjà am ngeen possibilité jàll quoi qu'on puisse dire Amadou Ba jàll na am na mun na jaar les élus mun hmm. est-ce que tamit newul euh, une benn démonstration de force ak li bu mu bëgg a def nii non vous savez vous savez vous savez dans toute coalition on a besoin que les leaders wàcc sur le terrain sa on n'en disconvient pas. ça ça veut dire que aujourd'hui tey mhm. ak parrainage ma tax ñenn ñi mhm. déjà fuuti xëccoo la. Mhm. Grand Dakar tey ku nekk yaa ngi jaar fenn fuuti ay ay ay ay ci parrain. déjà dina permettre say responsable politique. dem wuti ay parrainage. mais juste ça va ça va te permettre le xam ne ah. dans telle naa ne diw kat tant de la yow la am. je pense que loolu aussi c'est dans le jeu démo. démocratique même quoi. du du pays. benn moo si DGE Ousmane Sonko mi nga xam ni bañ nañ euh, jox ko fiche de parrainage malgré mm. une décision judiciaire. waaw xam nga xam xam xam aussi je pense que c'est un imbroglio juridique. Mm-hmm. parce que la question est à se poser. Mm-hmm. la décision du juge. Mm-hmm. la ju la décision du du magistrat. est-elle suspensive ou non. je pense que loolu aussi nit ñu bëri dañuy dañu dañu dañu kii wax xam ne ñu naan bu ko bu ko juge nga xam dafa rendre décision en premier et dernier ressort et décision bi xam nga ñu mu dee non non non euh, euh. non non non non ce n'est pas en dernier ressort c'est juste en ah premier ressort non non non mu ne nekk ah non non tamit newul dernier ah, ressort. non non non ñu pourvoi def pourvoi ak directement. waaw waaw loo tax loo donc. moo tax man la ah. moo tax man la nekkul premier ak ak dernier ressort. Mm-hmm. xam premier ak dernier ressort mooy bu jeexee. Mm-hmm. loolu demee demee demee demeewul noonu c'est en premier ressort. Mm-hmm. maintenant dem nañu jugement cour cour suprême. cour suprême lu ñu décidé bu nekkee bu dee dafa ni. nañ ko dellu ci liste yi. loolu l'administration aura l'obligation dugal ko ci ci ci kii yi. est-ce que décision bi amul exécution provisoire. Euh, non moo moo moo moo tax man la dafa am décision yoo yoo xamante ne tey. est-ce que c'est suspensif ou non tey soo demee à l'article 47 day da dalay wax ci yan cadre la décision bi di suspendre décision administration. en tout cas ma loi bi nga gis. mais Mame Diallo on a vu des juristes man personnellement gis na ay juristes des professeurs d'université ak même la société civile nee nañ décision bi ça doit être exécuté. Mm-hmm. Euh, ndax juge bi décision ba comme li nga wax ni c'est pas suspend c'est pas ça doit être l'exécution immédiate. Euh, non xam nga xam nga ça dépend ñoom interprétation bi ñu ciy bi bi ñu ciy def. mais mais mais mais mais attends je vais même je vais mm-hmm. moi tu sais ce que je pense. Mm-hmm. nañ ko nañ nañ ko jox ay parrainage am. parce que da ngeen ko ragal. politiquement ça en fait non. <laughs> ko ragal non tamit ñun. avoué nag maam Thierno Sonko bu ñëwee doo am dara. midi mu jeex non non tu sais. midi carte yi jeex. tu ne peux pas être majoritaire dans le pays ba pare di di ragal nit. Moi, vous je pensez pense que, que vous êtes non, majoritaire Non, même, même avec les, les, les on a été majoritaire. Mmh. C'est que l'Union faté. Hmm. Aux élections législatives, hmm. nous avons eu 1 500 000 voix. Hmm. Les Yéwi réunis a eu million de, de qui voix. Yéwi Tasna. c'est-à-dire que les Yewwi. seen i manigance quoi. non non non je veux dire. je veux a tas xam nga ñu bëri. ñu ah. yu bëri. Mhm. Sénégalais yu bëri la Sénégalais yu bëri dañuy juum je te donne mhm. un calcul très simple. Mhm. aux élections législatives yi ñu génn. le Yewwi il a eu un million de voix. le Benno Bokk Yaakaar am un million cinq cent mille voix. la la Yewwi la Yewwi regroupé. le pur, il a au moins 300 000, 300 000 électeurs. Mais contexte... Sur... Non, attends, attends, et certain. Mhm. Le pur, il a au moins 300 000 électeurs, sûr et certain. Taxawu Dakar, am na kii 200 000 mhm. am na 200 muy 500 donc Sonko. Mhm. à lui tout seul. ci élection yi war nañu il ne pèse pas 500 000 voix. mais Mame Thierno ragal ñun. mais Mame Thierno contexte yi bokkul. contexte yi lu tax bokkul l président Macky Sall mi gars yi doon ki gunge nekkatu fi. Mm-hmm. Mm-hmm. déjà coalition Benno Bokk Yaakaar tas na yaa Aly Ngouille dem na. Boun dem na non euh, coalition bi tas non coalition yooyu moo tas. waaw yéen tasul non <laughs> non yooyu moo tas. man caa mais frustration non non vous savez vous savez parce que ñi dem en fait dañoo dañoo am doole c'est des poids lourds yoo xam ne à la nee nañ sa euh, Abdoulaye Daouda Diallo moo sauvé coalition parce que bu demoon Amadou Ba bëri na. kenn kan la. non bëri na. ni ngeen wax ma wax ma keneen déjà man j'ai vu par exemple ay directeurs généraux yu ñu limogé bëri na Mame Samba Ndiaye a été limogé euh, Mame Boye a été limogé euh, Mohamed Moustapha Diagne a été limogé. Mm. Euh, l'autre Mbodj là Ibrahima ah, Mbodj. ah mais liste bi c'est existe c'est la parce que ñoom c'est la va de soi quand aujourd'hui tu dans une coalition. à partir de cette coalition là ñu fal la. boo demee ba ba ba dàqaaratoo ci ak coalition waratuñu xar si ñu lay da nga dem da war a génn. Hmm. loolu mooy ci li li ci dëgg. yéen daal noonu ngeen ko gisee quoi. non non non non tu sais. la compétence léegi fu ñu koy def. non non tu sais. a ànd ak vision président bi. ñu la xamante ni il faut ñu waxante dëgg. autrement li ngay wax ni boo politiqueul doo non fépp foo dem ci non am na hmm. poste yoo xamante ne. Hmm. président mën na xool koo xamante ne compétence la koy tànnee. mais ñii nga ma wax nii. dañu am compétence ba pare. politique bi tax nag yow yow ki tànn leen. Euh, bu ñu kaaw par exemple Mame Samba Ndiaye gis na lu mu def màggal bi ak train bi nga xam ne gëj na daw ñëpp magnifié ko. Mm-hmm. on s'attendait pas que ñu limogé parce que juste. non mais mais c' est un candidat il c' est mon ancien <laughs> ah, a même il n' a de le gérer. Ah. la bàyyi mu dem campagne campagne rek. man kenn donc temps bi ñu cëraloon mooy waaj a jeex. Mm-hmm. mais am na question boo xam te mënuñoo toog ci plateau diñ ci wax. Mm-hmm. mooy la question régime Macky Sall nga xam ne nii moo ngi jeexal mais daanaka nu mu jëlee nguur gi noonu la ko nar delloo parce que je m'explique ba muy jël nguur gi émigration Barça Barsak bi jamono jooj bëri woon na fi mais tey la waa waalo gën a aay jeunes yëpp ngay dem Nicaragua ñii ngi dem feneen dëkk bi daanaka man ak yow rek a fi dem <laughs> ah? non non échec échec wu politique wu non non c'est président Macky Sall ce n'est pas échec mais mm-hmm. tu sais juste xam nga mm-hmm. euh, dañu nekk ci réew moo xamante ne nii pourcentage jeunes yi. Mhm. ni mu toll de dafa ki ci jéggi dayu. moi je pense que au dernier recensement on dit qu'on est à presque pour cent de jeunes. Mhm. soixante dix pour de Sénégalais qui est moins qui ont moins de quarante ans. Mhm. réew mi nag. da ngay def di jéem. waaye mënaguñoo régler régler ci lépp. mënaguñoo régler lépp. parce que aussi nit il faut nga ñemee wax dëgg. xam nga liy génn ci université ak ak les de de formation yëpp. Mm-hmm. état bi mënagul a am fu la dugal. question tu euh, Barça Barça bi lan non non loolu moom c'est c'est kii regrettable na jeunes xam ni. Mm-hmm. àdduna moom dara jaru ci xaru. Mm-hmm. dara jar ci xaru. Mhm. parce que boo xool Barça wala wala Barça risque yi ci nekk. Mhm. je pense que jar ko xaru. ak Nicaragua bi nga xam ne ni ay camp lañ leen di yóbbu. waaw mais mais moom mooy moom li ma tu tu sais comme li nga wax di nga ci am xarit bu dem. Mhm. Euh, neexul neexul nag mais on est on est on est obligé de vivre avec di wax ni rek jeunes yi encore une fois moi quand tu prends aujourd'hui cinq millions pour dem voyager États-Unis mais am na am na loo ci mën a def. c'est c'est que malheureusement espoir boobu jeunes jeunes yi perdent. ci man ci loolu la ñu war a. tu sais 5 millions quand quand dans dans daañu ci l' agriculture. Mhm. mais pour dem États-Unis te faut au moins 5 millions pour dem Nicaragua ba dem États-Unis. Ah, mais 5 millions bu ko investir ci ak solo état. waaw ah, c' est vrai mun nga mun quoi qu'on puisse dire. je mais mais les conditions ne sont pas. quand euh, malheureusement malheureusement aussi. Mm, mm. espoir boobu jeunes yi jeunes yi jeunes yi jeunes boobu la ñu war a mais laaj ngeen ci avoué. en quoi faisant non non du la jeex xam nga aussi xam nga mooy la ma la mm-hmm. président daal président daal 12 ans kese la fi def. Mhm. ci 12 ans kam li mu mënoon mooy commencer par infrastructure yi. Mhm. commencer par équité. <laughs> équité équité sociale. Mhm. maintenant Amadou Ba bu ñu à partir de kii 2024 nag. yaa nee nañ rupture la ñu de continuité si <laughs> gars yi rupture la ñu woote naan déglu il faut li ñëw. non non <laughs> je pense que nous allons passer au au au. au ah, premier tour en tout Ba defee li mu war a def. Uh-huh. nous allons passer au au au premier. macha allah mam Thierno lañ dalaloon Thierno Birahim Ndiaye euh, di responsable politique Benno Bokk Yaakaar fële ci Grand Dakar euh, élément ma associative muy nit ku baax nit ku simple mais également nit koo xam te ni ku disponible la ndax Grand Dakar saa yu ko soxlaa mu bàyyi yitteem bàyyi léppam ñëw gis ngeen suñu premier numéro moo taxoon ñu dalal ko ndax. disponibilité mais simplicité am dañuy am mbégte di la dalal maam Thierno ñu bàyyi la nga tàggoo internaute également ñaanal suñu bébé bi di Levi TV ah. Euh, euh, international Faty ñoo ngi lay gërëm di la sant. Mhm. Euh, di ñaan Levi TV bi yàlla na suñu borom yokk ba mu dem ba bokk ci chaîne de télévision yi gën a mag euh, ci mhm. ci Sénégal ak ci mhm. monde bi. je pense que loolu mooy li ci am am gisoo leen aussi. di lancer un appel à toute la jeunesse sénégalaise. neen kat nañu garder espoir xam ni lépp dina baax incha bi et pour terminer di wax. le candidat Amadou Ba. En tout cas, à Dakar, mu avons la possibilité de le gagner. na dem seeti jeunes yi waxtaan ak ñoom ñu ñu gagné te jeunes yi jeunes mooy mën a waxtaan ak ñoom. jërëjëf maam Thierno euh, c'était la grande question Lévi TV ak faat Fati donc di leen jox daje ba beneen yoon jërë ngeen jëf.